bi fidèle ami internaute wala bëgg itam téléspectateur yu Arafat TV ñu ngi amati mbégte di leen nuyooti saa su nekk comme ni ñu koy amalee acti commenté di jaajëfal ñi nga xamante ni ñooy suñu internaute rawatina gan yu bees yi nga xam ne am nañu ko gis nañu dèjà démb acti commenté bi nga xamante ni def na retour euh, nombre d'abonnés bi nga xamante ni muy gën a yéeg bu baax a baax waaye itam commentaire yi nga xam ne ñu ngi ko ci am yëpp ak it ñi nga xam ne sax peut-être ci suñu numéro la ñuy jaar ñii di encourager waaye itam am ñeneen ñoo xam ne dañuy ñëw indi ñoom itam seen xalaat loolu mooy li ñu soxla mu continuer di am ci li nga xamante ni moo di actu commenté bile nga xam ne dañ koy basé ci li nga xamante ni moo di euh, xalaat yi nga xam ne da ngeen koy am waaye itam li nga xamante ni moo di seen ay gis-gis ñu dajale xalaat yi xool la gën ngir mën ko partager ak yéen saa su nekk démb daanaka mën ne ne ñu ngi taxawoon ci li nga xamante ni moo di euh, prix gerte bi nga xamante ni gouvernement bu Sénégal daal dinañu ko joxe ni ki démb ñu fixé ko ci li nga xamante ni moo di trois cent yu teg euh, dërëm mu di trois cent cinq francs mu doon loo xamante ni mbégte la waaye itam guléet la ci Sénégal

opérateur économique lañ wala boog itam kuréel yuy jàppale ay baykat nee nañ dañoo xeeb li nga xamante ni moo di prix bi donte la ñun anticiper woon nañ ko depuis démb wala sax lu jiitu démb bi nga xamante ni annonce bi jàpp nañ dina génn rek ci lañ taxawoon leeral li nga xamante ni moo di euh, gouvernement euh, maanaam li ñu mën a levier ak itam maanaam effort yi ñuy def pour indi li nga xamante ni moo di prix gerte bi ci fi nga xam ne lañ ko taxawal mu di trois cent yu teg euh, cinq wala boog itam wala cinq francs ñu bàyyi xeloo xel ñëpp que ne daaw prix gerte bi nga xamante ni moom la gouvernement bi fi nekkoon daal di woon annoncé lañ ca dolli woon moo di cinq francs ren nag li nga xam ne moo di gouvernement bu bees bi li nga xam ne moom la teg euh, muy ndollal ci prix gerte bi boo xayma xaymaa dalay jox vingt cinq francs ci kilo bu nekk loolu jàpp naa ne képp koo xamante ni xam nga ko peut-être dafa doon looy jaay mais saa boo soxlaa pour jënd ko di nga xam bu baax a baax que ne vingt cinq francs néewul benn yoon waaye dañoo bëgg def rek tuuti rappel pour que ñi nga xamante ni peut-être dañoo jàpp ne gouvernement bi dañoo dooree ak baykat yi ci li nga xamante ni moo di njëgu gerte ñu xamal leen ne gouvernement bi ñu toogee ak léegi du ci joxe prix gerte du ci trois cent cinq francs la ñu démarré ak baykat bi waaye dafa am euh, bor boo xam ne dañ ko fi fekkoon mu fekk mu toll ci quarante six milliards yoo xamante ni euh, bi ñu fi wuutu ko yoreloon ñi nga xamante ni ñoo di opérateur économique yi ci diggante ba gouvernement bu yees bi wala boog itam régime bu yees bi bi ñu yegsee génne lu milliards fay ko li nga xamante moo di opérateur économique euh, euh, bi ni ñu ko àndee ak li nga xamante moo di gouvernement bu yees bi jàpp naa ne bokk na ci li nga xamante may na leen réussite bi nga xamante ni am nañu ko ci li nga xamante moo di départ bi waaye itam lu dul loolu amaana ci côté horticole mooy ñi nga xamante ça quinze milliards boo xam ne injecté nañ ko te ci côté boobu lañ ko jëmale pour lan ay bor yoo xamante ni état bi nga xamante ni wuutu nañ leen fi wala boog itam régime fi euh, daal dinañu ko daal dinañu ko amal ci ñoom waaye tam beneen mbir boo xamante ni itam yow mi nga xamante ni ab baykat nga dèjà bu dee ne tay nga ko saliyewul xanaa tay la mais amaana bi nga ci tollee di ko jënd euh, bi nga defee comparaison ak daaw daaw jéeg daawaati jéeg jàpp naa ne xamoon nga bu baax a baax njëriñ leeg importance bi mu di prix engrais nga xamante ni dañ la ko wàññil daanaka mën nga ne ba vingt pour cent euh, jàpp naa ne ren engrais ak jiwu wala boog surtout engrais mën nga ne doy na waaye itam ñëw na ci heure et puis itam des na ba tey nii may waxee ak yéen ku soxla woon engrais boo demee ci bërëb yi ñu koy jaayee ci euh, magasin de stockage yi mu nga fa ba li tax ñu mën euh, ni moo di engrais bi nga xamante ni moom la régime yi weesu daan séddale jàpp naa ne euh, loolu bu amee benn régime bu yegg si fi quelques mois gàtt yi nga xamante ni ni def nañu ko fi def réussite bu toll noonu ci li nga xamante ni moo di euh, campagne li nga xamante ni moo di agricole bi wala boog itam euh, hivernage bi jàpp naa ne dañoo war a saluer waaye itam rafetlu li xamante ni euh, moo di moo di moo di moo di jéego yooyu quand même bu dee ne ay góor lañ waaye itam beneen bi nga xamante ni dañ koy war a rafetluwaat mooy li waral ñu am réussite bi nga xamante am nañ ko ci séddaleem engrais bi mooy guléet ñu gis ci état bu Sénégal taxaw def appel d'offre pour ni ñuy séddalee engrais bi waaye tam ak ñi ko war a séddale waaye itam yemuñu ci loolu waaye encadré li nga xamante ni moo

armée mu taxaw ci wetam euh, yaakaar naa ne baykat bi la ko war mooy mu applaudi bu baax a baax li nga boobu te loolu euh, ñëpp fàttewuñu ko waaye euh, ko ba nga xamante ni am nañ ci lu kawe seen njort ñoom ñi nga xam ne ñoo di baykat waaye itam ci biir loolu nga gis ne maanaam weesu nañ engrais bi waaye itam menace bu nekk ñu ne la maanaam mën nga am ci engrais wala boog itam ci jiwu ci période boo xamante amaana yaa ngi fa daan am 5 kilos waaye menace bu nekk ñu dugalal li nga xam ne moo di kilos euh, nañu xelaat ci yooyu bu baax a baax a baax loolu rappel la boo xam ne du mënoon du mënon ñàkk ñu def ko régime bi yegg si bi muy yegg si daan séddale jiwu ci li nga xamante ni moo di borom kër yi wala bëgg tam kër gu nek dañ fa daa joxe amaana cinq kilos waaye nag ñii daal nañ ko multiplier amaana mën nga ne ba par ba ba ba parce que cinq lañ jógee dem ba cinquante loolu jàpp naa ne yéene la ak itam euh, intention waaye itam euh, volonté boo xamante ni am nañ ko pour jàppale ñi nga xamante ni ñoo di ñoo di ñoo di euh, baykat yi te itam baykat nag ku ko bëgg a dimbale ci foofu rek nga ko mën a jaarale ci li nga xamante ni moo di mbay mi muy yëngu nga fexe jàppale ko waaye itam engrais bi nga xamante ni moom la soxla nga fexe mu yegg si en temps xamante ni maanaam du toog ji ba pare du toog ji sunaam ba pare ji toolam ba pare di xaar fan laa war a mën a jëlee ji engrais mais déjà yëg nga ne fi nga xamante ni leen doon joxee jiw euh, da ngay bouger quelques mètres wala boog itam quelques minutes ñu jox la li nga xamante ni moo di sa engrais nga daal di dem waaye itam ginnaaw boo xamante weesu nañ loolu itam gouvernement bi am volonté di ubbil sinuwaa normal bi loolu mooy li leen di yokk ñoom béykat bi te fekk euh, dafa doon xelaat bu gàtt gàtt sinuwaa bi bàyyi xel ne li muy jëlee ci yow comme gerte boo xamante ni amaana boo bayee sa tool mu doon lu naturel lenn rek la koy def bu ko yóbboo réewam mooy xolli ko amaana delloo siwaat ko sa réew ginnaaw bu ko ndalee def ko diw léegi nag euh, def valeur ajoutée ñëw jaay la ko ci prix boo xam bu seer seer la te fekk yow yaa bayoon gerte googu léegi nag bu ñu amee gouvernement boo xamante dafa am volonté wu dekkal li nga xamante ni moo di usine Sonacos yi ñu xamoon ci Sénégal fu ci mel ni Kaolack doonoon la doomu Saalum yu bëree bëri daa xëy daa noor sax ba tax amuñu woon benn relation ak euh, peut-être euh, ambilaman yi nekk Dakar wala boog itam yi nekk Thiès wala yi nekk Ndar wala

milliards ngir li nga xamante ni moo di campagne boobu mën a jaar ci yoon waaye itam lépp loo xamante nisir nañ ko ci euh, lu ñu war a jëndee prix gerte li tax ñuy wax loolu mooy ki xam ne taxaw na ak ay sénégalais ne ci année bi nga xamante ni la ñu jàpp naa ne loolu dafa nekkoon ay kàddu yoo xamante euh, lu ñu naqari woon la peut ci période yooyu daawul euh, am am temps pour taxaw di ci taxawaat mais li am solo dëgg-dëgg mooy régime bu yegsee ci place nga xamante ni mu ngi nekk ci opposition bi jàpp ne euh, Sénégal li koy doxal mooy fokk ñu dooleel baykat bi baykat bi ci boppam mooy am fulla ju toll ni maanaam homme politique bi nga xamante ni moom mu mën a moom boppam ngir que mu mënal boppam jàpp naa li la war mooy nga delloo ko loxo bi nga xam jox na la ko parce que euh, régime yi weesu yëpp li ñu doon def wax dëgg yàlla yomboon na lool mooy ubbi ay frontière li nga xamante moo di chinois bi ñëw tibb gerte gi yóbbu bu ko jaay bu Eh, nga ubbilaat ko frontière mu ñëwaat jaayaat ko sa biir réew léegi bu ko defee nag maanaam yow sénégalais bi nga xam ne yaa bayoon gerte gi li ngay sentir mooy eh, diw bu seer li ngay sentir mooy diw boo xam ne sax peut eh, qualité bi mu war a am dëgg-dëgg peut-être na ko bañ a am comme ça te fekk yow yaa bayoon gerte gi peut-être sàgganee ko ba keneen yóbbu ko léegi état bi li leen di sàkku ngir que ñu gën ko def mooy gën a dëgëral usine de formation dañuy mën li ñuy béyee ci biir réew mi ñu koy transformé ci biir réew mi bu demee ba am lenn loo xamante ni dina ci génn biir réew mi itam na doon loo xamante ni lu néew a néew a a néew lay doon waaye itam fekk ñun jël nañ li nga xamante ni war nañ ko war nañ ko war dundee ba pare parce que Macky bi ñuy wax autosuffisance alimentaire autosuffisance en riz moo xam nu mu ko mën tuddee dafa waxoon ne en 2017 dina fekk Sénégal doyal ci wàllum dund surtout ko ne day génnee di yóbbu bitim réew ñu nit a yegg di génnee loolu première option maanaam loolu kañ lañ ko war a xalaat mooy bi nga xamante dem nañ ba yëg ne suñu euh, industrie ci biir réew mi fii doyal nañu ba nga xamante ni maanaam liñ soxla woon pour di ko transformer ci biir réew mi liñ soxla woon di ko euh, naal ci biir réew mi comme diw liñ soxla woon comme rakkal comme ça comme ça lépp am nañ ko ci biir réew mi su ko defee nag ñu yëg ne suñu mbay yegg na fi mu war a yegg dëgg-dëgg ñu daal di génnee yóbbu bitim réew xam ne maanaam kooku ëllëg même bu nalee diwam bu ko indi ci biir réew mi itam da ngay ni moo di sénégalais yi

toll ne président Macky Sall diru lim mu fi nekk yëpp mosu ko indi 300 bakoy koy tegal 5 5 francs yoyu waye tam euh, ki nga xamanteni peut-être mu ngi taxaw que ne 305 bi dafa touti pourtant même personne euh daw amul won même prix bi ci président Macky Sall te teewul élection présidentielle yi passé Macky Sall daf ko ne sama candidat yi ngi nii continuité lay def kon mooy lan la ma tegoon lay kon ne mais teewul moom nga apprécier woon votel ko kon euh, dëgg la tolluwuñ ci jamono ku nekk ka nga tànnoon demal nga mu demal mu dimbale wala comme ça mais il fallait que it ñu leeral masque yi nga xamante ni moom la ñuy critiquer parce que boo solee masque wu euh, ku ñu duma ci présidentielle sol masque wu ku ñu duma ci législatif bëgg taxaw euh, di critiquer li nga xamante ni moo di volonté ak itam taxawaay bi gouvernement bi am ci côté baykat yi ak prix bu baax bi nga xam ne jox na ko baykat yi te ñu bëree bëri yaakaaruñ ko woon jàpp naa ne wax day baax terrain politique nga nekk terrain boobu nag peut-être béykat bu amul fu mu jëm wala boog itam xamul lu muy def moo la fay fekk mais sénégalais bi nga xamante ni xam na xàmmee na xam na bu baax a baax li nga xamante ni moo di marché boo koy gérer yokk ak wàññi naka la war a mën demee liñ doon faral di gis mel mooy yokk yoo xamante ni dërëm lay doon ñaar dërëm lay doon ñett dërëm lay doon Macky Sall ni ma leen ko waxee daaw dërëm la dolli ci li xam ne mooy di prix bi amoon daaw jéeg mais nga gis koo xamante yokkal la vingt mais yow euh, ne nga ne cinq cent laa a a teg sama loxo que baaxul gerte dafa néew moo tax ba cinq jaakaar naa ne calcul yooyu dafa baax ñu bëree bëri ñu koy bàyyi xel bu baax a baax jàpp naa ne daal euh, gouvernement bi def nañ acte bu fort waaye le reste bu dee ne am nañ leneen lu ñu waroon mën a dolli ci prix gerte bi nañ ko dooleele ministre bi nga xamante ni moo di Maïmouna Dièye ngir que bu dee yi am na ci ñoo xamante ni seen nawet demeewul noonu euh, ñu préparé leen ko ay ndimbal ay aide ni peut-être dinañ leen ko mën a jàppale ko dimbali ko parce que ki nga xamante ni itam dina soxla ndimbal ci état mais nag ndimbal googu dañuy ko ko directement wala boog itam euh, jël lépp li nga xamante ni moo di moo di moo euh, gerte bi parce que Sénégal bu dee par exemple bu dee béykat yi dañ doon dañoo doon téeméer taxaw sa kanam léegi am juróom fukk yoo xam ne nee nañ la ñun suñu nawet baaxul amuñu gerte yow nga ne damay dimbale béykat yi mais li ma leen di dimbale lépp maa ngi koy def ci biir gerte bi <laughs> jàpp naa ne ki amul gis boppam kon euh, foofu il faut léegi la yoo xamante ni suñuy état jàpp nañ ne ñu fa mais sénégalais lambda bi nga xamante ni mu ngi ci gox ya gox goxaat yi di bay mu ngi itam na bàyyi xel ne foofu la war a nekk waaye itam état bi ñu gën a jëmmal li nga xam moo di mbayum noor mbayum dër comme ni ñu koy waxee maanaam jàppale ci baykat bi ba nga xamante ni bu paree ci ay toolam dafa am feneen fu muy a gisaatee boppam ndax Sénégal am nañ fi ñu fi nekk ñoo am nañ ci expérience am nañ jom ji am nañ comme ça mais nag euh, toujours li leen faral di gàllankoor mooy jafe-jafe ndox ci ñenn ñi ñenn ñi tam jafe-jafe financement parce que alal moo koy investissement bi mu laaj alal la joo xamante ni euh, du yomb peut baykat bi mu am ko mais encore une fois ñu ngi rafetlu daal bu baax a baax a baax acte fort yi nga xamante ni état actuel ñu ngi koy teg jëmale ko ci baykat bi jàpp nañ ne euh, Sénégal dina sensé ni ñu ko doon waxee gëmee nañ ko ko tey te itam gis nañ li nga xamante ni moo di confirmation boobu parce que euh, am réew boo anee boo jëlee li nga xamante ni moo di wàllum mbay jiital ko ci kanam waaye itam euh, dëgmal li nga xamante ni moo di Sénégal goo xam ne day moom boppam ci wàllum dund jàpp naa ne pare nga pour jàppale ay ndawam pare nga ngir xamem loolu yi nga xam ne ñoo di baykat yi ndaw yi ngir ki ñu delluwaat ci mbay mi comme ça loolu lancé la bu am solo boo xam ne bëgg nañ ñu continuer ci bu baax a baax ñu jeexalee ko ak peut-être tuuti commenté ci élection législative yi ñu weesu rawatina euh, soññi goo xam ne dinañ ko def ci député yi nga xamante ni ñoom la fal euh, gis nañu Pastef ci boppam surtout que seen leader bi Ousmane Sonko déclaration bi nga xam ne def na ko ginnaaw formation bi nga xam ne séminaire de formation bi nga xam ne defaloon na ko wala boog doon nañ ko amal ak député Pastef yi nga xam ne peut-être gan la doon ci assemblée nationale euh, mu doon acte bu ama am solo boo xamante ni ba mu am nombre bi mu am ci assemblée nationale mu tolloog cent trente députés te kenn mësu ko fi am Macky am na ñuy def amalgame que ne amoon na cent et quelque nangam sangam mais Macky Sall cent vingt cinq députés la amoon ak. coalition am bi nga xamante ni moo di benn Bokk Yaakaar wala boog itam voilà Benno Bokk Yaakaar ginnaaw boo xamante ni jugee nañ ci élection yi ci la am ay transhumants yoo xamante ni ñëw nañ mais 130 députés Macky Sall yeggu fa woon pour que ñi nga xamante ni ñu ngi def amalgame boobu mais euh, waroon nañ taxaw ci wax dëgg yàlla encouragé rafetlu tàccu applaudi acte fort bi nga xamante ni Ousmane Sonko def na ko ak discours responsable campagnal ay nit ba ñu falu mais nga taxaw janoo ak ñoom mu wér leen ci bañeeru parti la ñu duggee ngay leen attention fii ñu dëgmal du mbirum parti lañ fa soxla du mbirum Ousmane Sonko lañ fa soxla du fa soxla mais ku teew assemblée nationale na nga xel ne askan nga fa teewal na nga xel ne ndawu askan wi nga lépp luñ fa indi comme loi na nga xel la moom Abdou Aziz Dabakh waxoon maanaam au balaa ngaa xool sa digg ak Abdou Diouf ak keneen ak euh, président assemblée xoolal sa digg ak sa borom d'abord waaye itam xoolal sa digg ak peuple a a per liggéey comme ça nga doog a a yegg si fi nga yegg si kooku jàpp naa wax dëgg yàlla responsable bu def lu ni mel wax dëgg yàlla yoon la woon ñu waxtaanee bu baax a baax a baax parce que ñu ngi taxaw ci détail yoo xamante ni ñoo gën a njëriñ foofu que ni mel te pourtant ñun ñëpp dañ doon wax ne Euh, toujours politiciens yi dañuy bëgg di gagner assemblée nationale pour que mën a téye li nga xam ne moo di pouvoir waaye itam man di ko politiquer pour que man député Pastef la député APR la parce a yem léegi la ñëpp yemuñ wax dëgg yàlla yow a yem mais bul nga xam ne dañ ko war a encourager parce que mënuñ fi nekk ñun donte euh, par exemple dañ doon yàgg encourager encouragé maanaam euh, acte bu ni mel homme dem fa léegi nga gis ku dem ci euh, dynamique bu ni nga bëgg nëppiwaale mbir moomu loolu su jëf lay xaw a nirool te lu ni mel muy appel boobu mu def ko ñu ngi ciy gën a soññaat député yi nga xamante ni yëpp maanaam yóbbu nañ ci assemblée nationale rawatina département bi ñu nekk muy département bu Koungheul El Hadj ak ki nga moo di euh, li nga xamante ni moo di mission bi leen di xaar parce que député peut am na ñu ñu tànn ngir que ñu teew ci assemblée nationale sénégalais bu nek waye tam nit ku nekk war nga mën a am responsabilité bu toll ni def sa bopp député ci gox ba nga dëkk def sa bopp député ci réew bi nga xamni mom moom nga dëkk parce que toujours nga dox gis loo xamante japp jàpp nga ne euh, jafe-jafe la toujours nga dox gis loo xamante japp jàpp nga ne lu ñu war a joyanti la mais fexel fo mën a yegg fo foo ko mën a nga yeggale ko fa ñun suñu plateforme suñu scène suñu nangam suñu nangam fas nañu yéene continuer suñu rôle alerte bi nga xamni ne nekkee nañu ko ci li nga xamni modi jafé jafé jafe-jafe yi ñuy gis ci Sénégal rawati na département bi nga xam ne la ñu nekk waaye itam rawatina tund surtout parce que dafa bëri ay dëkk yoo xamante ni ñu ngi dund ay jafe-jafe yu métte métte métte ci wàllum ndox ci wàllum courant ci wàllum faju ci wàllum ci wàllum ci wàllum yooyu yëpp doon ay jàmbat yoo xamante ni toujours député yi ñu doon am daawuñu faral di apidi habitude woo di jël ay soxla askan di ko yóbbul yi nga xam ne moo di ay ministère li ñu doon faral di gis ci ñoom mooy naka la ñuy taxawee ci hémicycle bi surtout bis boo xamante ni amaana caméra yëpp jublu nañu ñ taxaw fa def soow amaana jaagar jaagar fois jaay cuuraay des fois jaay parfum bu ñu fa jógee ñëpp seen ay mbokk jël euh, applaudi tàccu dugal ay esthétique mais amul benn suivi boo xam ne daana ci am li ñuy sàkku nag ci ñaari député yi nga xamante ni am ko comme suñu borom dogal nañu gulet ñu doog am député boo xamante ni wala boog itam ay député yoo xamante ni jàng nañu xam nañu mën nañ nañoo bindante ak ay ministère jàpp naa ne danañu aj niveau ba lépp loo xamante ni ay doléance la lépp loo xam ne ay njàmbat la dañuy mën di bindante ak ministres yi nga xam ne ñoom la concerné ba nga xam ne dañuy dégg ci ñoom comme nañuy déggee ci Guy Marius Sagna maanaam ministre euh, sangam bindoon naa la nangam question écrite question écrite sangam question écrite sangam jàpp naa ne foofu ñun département Koungheul bu ñu demee ba am député yoo xamante ni yegg nañ ci niveau boobu euh, état dinañu gën a reconnaître reconnaître tam itam dinañu gën a respecter parce que euh, dañuy wax ne des fois nit ki dinañ ko ñàkkee respect te fekk ndaw li nga xamante am na ko ca bërëbam wala boog itam ca bërëb ba moo la fay jaay wala boog wanee fa sa kar kanam wala boog itam sa casquette noo xamante ku la gis dalay xeeb mais ku nekk xam na ne quinzième wala boog itam quatorzième ak quinzième législature bi ba sax mën nga aj ba ci kaw a ci yeneen yi que ne département bu seen ñàkk respect na leen ko respect bokk na ci li leen ko yóbbee seen responsable yi nga xamante ni ñoo leen doon représenté ci assemblée nationale doon leen représenté ci yeneen Euh, ñu ngi leen di soññi nag comme ay ndaw lañu nañu fexe ba seen ay nopp nañ ko ubbee woon demb ak barki démb waaye tam li nga xamante ni moo leen indi fi ñu yegg ci tey doon loo xamante ni combat wu ndaw ñi la combat askan bi la combat wu sénégalais lambda bi la nañu fexe ba ñooñu doon seen star ñooñu doon li nga xamante ni moo di euh, seen interlocuteur fu ñu leen woowee nañ leen jot waaye itam demande boo xamante ni am nañ ko ci ñoom nañ fexe ba xam ne ñoo adopté wala boog itam ñoo accepté nangoo doon surga li nga xamante ni moo di askan wi waaye itam ñoo adopté wala boog itam accepté pour nangoo doon li nga xamante ni moo di euh, Euh, mbindaanu département bu Koungheul jaakaar naa ne bu ñu ko euh, xamee noonu xam responsabilité bi euh, fexe tënk bu baax a seen bopp ci li nga ni moo di politique gu Pastef li nga xamante ni moo di idéologie bañ a jaawale nag attention li nga ni moo di rôle député ak rôle ministre parce que ñi fi comme ay député li waral lu bëree bëri ñu ko daan mën a def dafa am ay pratique yoo xamante régime yi fi nekkoon noonu la doon def surtout que bu régime Macky Sall maanaam euh, boo gisee benn député boo xam ne gàddu na benn masnuwal ñëw ne ku nekk xam na ne amul député boo xamante ci ñun gis fii di jël sa salaire député dem di ko jënd jee quelque chose wala boog itam matériel lu mu mën doon ñëw di ko jox li xam ne moo di aw askan